الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن الإسلام دين عقل وعلم ولا الخرافات فقد كان موقف القرآن في الحث على التفكير في ملكوت السماوات والأرض بأساليبه التي أردناها برهانا واضحا على مكانة العقل والعلم في نظر الإسلام mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi sunu xutba tey mooy islaam diinay xel la ak xam-xam waaye du du du diinay xarfa fuufa islaam diinay xel la diinu aqlin wa ilmin walal xuraafaat islaam du ay xuraafaat du lu ñuy làmbatu du lu ñuy wax yaakaar naa wala defe naa wala foog naa wala gis naa déedéet islaam diinay xel la islaam diinay xam-xam la looloo tax téere bii di alquranul karim di waxi yàlla tabaraka wa taala di téere lislaam saa yoo ko ubbee da nga fay fekk muy soññ ak a ñaax nit ñi ci xalaat ci bi bind bi yàlla bind asamaan wala bind bi mu bind suuf walla sax bind bi mu bind nit walla bind bi mu defar àdduna bi lépp inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi leyli wan nahaar la ayatin li ulil albaab borom bi tabaraka wa taala nee na yéen doomu aadama yi am xel yi yéen laay waxal ci ngeen xalaat ci bind bi ma bind asamaan ak suuf ak wuutale gi may wuutale guddi ak bëccëg borom bi nee na loolu ku ko xool rekk xam ne lislaam diinay xel la ak diinay xam-xam moo tax mu indi ay lay yu leer ay dalil yu ne fang ndax lan ndax xel moo ko jiite ci islaam ku dul xalaat bokkoo ku amul xel bokkoo même da ngay dégg ci surutu sihati salaa ñu ne la al majnun rufia anhu al qalam ku dof yëkkati nañ mu ci moom xalima gi kenn du ko bindal bakkaar parce que amul xel laa diinu liman laa aqla la ku amul xel amoo diine bokkatoo ku amul xel ci islam bokkatoo tey nag nu gis doomu aadama yi xel mi leen yàlla may dañ koo lem teg fee wala buñ ci xalaat duñ ci xalaat seen wàllu diine duñ ci xalaat seen allaaxira ëllëg suñuy taxaw ci kanamu yàlla lan la ñuy xalaat ci mbirum àdduna rawatina nag am na ci ñoo xam ne daanaka danga naan ñii moom yàqu nañu àdduna yàqu nañu allaaxira lu tax ndax seen diine moom xel bokk ci loo wax rek baax na boo nee asamaan mun naa nekk yàlla waa ji ne la waaw waaw dëgg la mun na nekk ay soo nee suuf mun nañ ko jaamu mu ne la waaw waaw bàmmeel am na lu muy jëriñ mu ne la waaw loo wax rek mu ne la waaw waaw loolu mun naa nekk ndax yàlla mooy boroom kéemtaan yàllaay def lépp yàlla nangam yàlla moom xamoo fu muy tëll yàlla xamoo fu muy feeñee ixwatal iman al aqlu alatu tafkir xel mooy jumtukaay yi doomu aadama di xalaate mooy jumtukaay yi doomu aadama di xamee di ràññeewee diggante dëgg ak fen moo tax chaque jour alxuraan di ñu woo pour ñuy xalaat même ñi nga xam ne duñu xalaat ci seen xel duñu dégg duñu comprendre yàlla bu muy wax ne dama leen a yóbbu safara muy wax wa laqad zara'na li jahannama kasiran min al insi wal jinn lu tax lahum qulubun la yafqahuna biha xol yi yàlla may duñu xalaat dañuy mbuub rek di dajale dugal seen saak dafa ne fekk du loolu diine dafa bëgg balaa ngay def dara nga xalaat yàlla looloo tax mu may la xel looloo tax yàlla may la nga dégg looloo tax yàlla may la ngay comprendre mooy balaa ngay def dara xalaatal wal ilmu samaratu idan yakunu kullu ma warada fi lqurani hassan ala tafkir looloo tax téere bi di alquran mboolem aaya yiñ ciy fekk dañuy fekk muy soññ nit ñi pour ñuy xalaat muy soññ nit ñi pour ñuy comprendre bu baax a baax a baax pour doomu aadama mën a taxaw ci dëgg fa yaqifa al insan ala al haqaiq ndax doomu aadama mën a ràññee mën a taxaw ci dëgg di ko làmb ay loxoom balaa muy def dara soo ñëwee ne ko waaw yow lii ngay def nii nag mu ne la ci dëgg laa ko teg ndax nangam ak nangam ràññee na am na xel jëfandikoo na xam-xam bu leer ay texte mu doog a xam ne lii muy def lool la mbokk yi ñu bari ci ñun ci seen àdduna dañuy làmbatu ci seen diine dañuy làmbatu lu tax dañuy wax rek inna wajadna abaana ala umma ñun de fekk nañ sunuy ndey ak sunuy baay lii la ñuy def rek ñun loolu la ñuy def diine nag du loolu diine dañ la may xel jox la xam-xam pour lépp looy def nga def ko ci dëgg ñaata yoon la alquran di wax ne qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin indi leen dalil ci li ngeen di def fan ngeen ko jëlee lii ngay wax foo ko jëlee nii ngay jaamu yàlla nii ngay jullee foo ko jëlee nii ngay wooree foo ko jëlee nga doog a indi ay dalil lu leer man kat ni may jullee noonu la yonent bi doon jullee ndax yonent bi moo ne sallu kama raaytumuni usalli yonent bi moo taxaw ne xuzuwa anni manasikakum jël leen ci man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nu ngeen di jaamoo yàlla ixwat al iman wa bidalika kana al islam diin al fikri wa diin al aql wa diin al ilmi wa hasbuna anna rasul allahi lam yuqaddim hujja ala risalatihi illa ma kana tariqaha al aql wa nazr wa tafkir diina islam diinay xel la diinay xalaat la diinay xam-xam la doy na rek sunu yonente alayhi salaatu wassalaam musul taxaw def dara lu dul ba mu ko defee ba pare indil na ko dalil alxuraan wax na ko wala moom yonent bi leeral na ko ci sunna ne nii lañ koy defee bàyyiwul nit ñi noonu rek ñu war a làmbatu nekk ay taxankatu guddi ku jóg rek samp sandaa kii samp garab kii di jaamu mbët kii di jaamu sindax kii di jaamu doomu aadama kee di jaamu bammeel déedéet bal yonent alayhi salaatu wasalaam daf kaa leeral ba mu leer nañ alquran moo ñuy nettali ci nit ñi nga xam ne du ñu jëfandikoo xel du ñu jëfandikoo xam-xam wa qaalu lawla unzila alayhi aaya min rabbi qul innama al ayatu inda allah wa innama ana nazirun mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqawmin yuminun ikhwatal iman al ankabut aya 50 aya 50 sunu borom ne nit ñi sax dañuy taxaw naan lan moo tax Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam yàlla wàcceewul ci moom ay kéemtaan sénégalais yi dañoo bëgg kéemtaan loolu moo leen di nax benn waay day ñëw wax ak yow léegi rek yor kurus xëcc ñaari per rek ndox commencé sotti nga gis waa ji daal di julleetu allahu akbar commencé gis naa waa ji kenn day ñëw rek dugal loxo sa poos génn ay billet ne la xoolal nga ni gis naa waa ji kenn ne la xoolal asamaan nga xool rek gis ku kaalawu nga ne allahu akbar gis naa sayyiduna muhammad loolu mooy sunu problème tey jii ci àdduna su benn waay ñëwoon naan géej toog ci kaw suuf si di yor kurus di wird est-ce que ñun loolu daf ñoo war a yokk imaan wala daf lu ñu war a def dara du ñu yokk dara ndax sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam leeral na lépp waa jooju dootul indi dootul tere ba ñu bàyyi gaa yi nee nañ Abdul Qadir Jeylaani Iblis daf ko feeñu ci leer bu rafet ci jëmm bu rafet ne ko Abdul Qadir mu ne ko la bayk mu ne ko maay sa borom maay yàlla lépp lu ma araamaloon ci yow daganal naa ko bu la neexee bul jaamu yàlla dafa lu la neex baal naa la mu ne ko yaa mën a fen mu daal di daw leer gi daal di fay mu am ay fan mu feeñu ko mu ne ko noo xamee ne man la seytaan iblis mu feeñu ko mu ne noo xamee ne man la mu ne benn baat nga xam nga wax rek ma xam ne doo yàlla mu ne ban mu ne li ma araamaloon ci yow daganal naa ko xanaa xamoo ne laa tabdila li kalimatillah yàlla mbiram dootul changé dara munul araam tey suba mu dagan li araamoon démb moo araam tey li daganoon démb moo dagan tey moo tax ku ñëw di indi leneen dara sa mbir moomu dugal ko sa poos ndax yowmal qiyaam kenn du ñu ko laaj kenn dong lañ ñuy laaj yowmal qiyaam mooy sayyidil awwalina wal axirin muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokk yi doomu aadama yi sunu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ak ñoom ne gars yi dañoo bëgg ay kéemtaan yenn saa yi ñu ne Muhammad ana ay aayeem ana ana ana ana yàlla mu ne awalam yakfihim xanaa doyu leen yéen doy war na leen doy nag anna anzalna alayka alkitab man yàlla maa wàcce ci yow téere alquran doy na kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaas min azulumat ila nuur doy na téere bi kay doy na waaye yéen da ngeen di laaj ay kéemtaan ana kuy téye ngelaw li ana kuy indi jant bi ana ana ana ana kuy indi taw bi ana kuy yokk wërsëg ana kuy guddal fan moo tax gis nga ndeysaan buxaaba yi buxaaba yi sax xam nañ sénégalais dañoo bëgg ay kéemtaan dañoo bëgg yu garaaw moo tax da ngay gis benn waaye tëll feeñ commencé bind buntu këram man nangam laa ah man dama yokk sax awra ku bëgg sax awra yokk nga ñëw ma yokkal la ko ñaata yoon ngeen gis loolu ku yokk awra ku sa awra yokk foo ko jëlee xanaa koy mujj takk sa tànk la hawla wala quwata illa billah te loolu yëpp ñun dañ koy gëm dañ koy gëm wala ñu ne koo nuyu rek sa awra dem nga gis waa ji nit ñi xëy suba ba ci sax yenn saa yi ndeysaan mbokk yi day rek asalaamualeykum lan la ah kat dëkk bi wóorul koo nuyu sa awra dem fuñ jëm awalam yakfihim yàlla mooy ñuy laaj de xanaa doyu leen anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim hada alkitab yutla alayna fi lleyli wannahar téere bi ñu ngi koy jàng ci ñun guddi ak bëccëg mokkal nañ ko waaye téere bi lan la ñu jëriñ taxul ñuy xalaat benn waaye tey bu ñëwee ne la bul julli da ngaa war a toog rek déedéet lu tax mu naa la man nangam wàcce naa la liggéey nangam nangam kontaan naa ci yow déedéet ne ko nañ jël alquran ma xool ndax yàlla daf ma kaa sant wala santu ma ko chaque jour ñu wax ko kenn ci ñun bu demoon ci bitig di jënd ceeb nga ñëw waa ji tibb ñaari loxoom ne la am nga ni ko lii lan la mu ne la mat na kilo loo koy wax loo koy wax peese ko loolu nga koy wax allahu akbar lum la mën a jox ne la mat na da nga naan ko peese ko waaw lu tax bu nit ñëwee wax la ci alquran ak sunna ci diine waxoo ko nañ ko peese pourtant yàlla indil na la peese yàlla nee na wasinu bil qistas al mustaqim peese leen الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان peese baa ngoog lu la nit wax ci alxor ci diine ne ko nañ ko peese man de mun naa am juróom-ñaar fukki jabar nga ne ko kaañ peese ko fi ñu koy peese peese kaay balance ñaata palaat lay am balance ñaata palaat lay am ñaar jeex na peesa peesa kaay yow mooy alquran wa sunna intahal amru alquran wa sunna mooy peesakaay bi su waa ji waxee dara ne la man mun naa am njaganjaayi jabar nga ne ko nañ ko teg ci alquran nga teg alquran ne la déedéet ñeent la war a am nga ne ko ah alquran nanguwul de égiw baa ngi nii daa bañ nga ñëw ci sunna mu wax la ko ak lu mu mën a doon tey jii ñooñu nag ñoo am xel waaye koo xam ne lu mu la wax rek dëgg la waa dëgg la kay mën naa nekk de xam nga yéen da ngeen a mën a weddi nangam nangam gis nga ku yàlla may xel te doo ko jëfandikoo safara la la yàlla jëmee xel ku ko yàlla may te doo ci liggéey doo ci def ay analyse doo xalaat doo xool booy dee yàlla di la boxam di la yóbbu safara waa safara ñoo ko wax waa aljanna ñoo ubbi seeni fenêtre jàkkaarloog waa safara di leen xool jaaxle trop safara ni mu ñàngee ak ni mu mettee lan moo tax tey ñii dugg safara bal waa aljanna dañoo laaj waa safara yéen waa safara lu ngeen doon xullee ba dugg safara lan lañ tont wa qaalu law kunna nasma aw naqil ma kunna fasabi sair ñun buñ doon dégg la ñu gaa yi doon wax ca jumaa ja ca waaraate ya ca tafsir ya ca conférence yi liñ gaa yi doon wax naan gaa ñi dañ leen di nax rek àllaaxira kenn mënu fa dara suñ ko doon dégg aw naqil wala sax ñuy xalaat ci ñi ñuy wax loolu ñoom kon ma kunna fi ashaabi sair tey duñ dugg safara lan moo ñu dugal safara mooy dañoo tëjoon suñuy nopp daal ne gumba leen bu leen déglu bu leen wax bu leen gëm leen rek nit day gëm gëmal rek gëmal rek booy gëm kay xanaa yàlla ngay gëm kon doomu aadama ab jullit na yëg ne xel mi ko yàlla may def ci war a xalaat def ci war a dégg waaye rek mu bañ a dégg déggum ngumba mu bañ a tëx mu góor góorlu gis ngeen sunu borom subhanahu wa taala dafa jël xel def ko troisième place ba muy wax ci quran shahida allah annahu la ilaha illa hu wal malaika ñan la ci teg wa ulul ilmi qaiman bil qis gis nga borom xam-xam yi nit boo amee xel da ngay ut xam-xam bu la leeralal xel mi da ngay jàng sa diine bañ a làmbatu bañ a rek ah waaw dëgg la mën naa nekk mën naa nekk mën naa nekk Sénégal boobu xëyee sax nga ne suba mën naa taw jamaa ñu ne la waaw mën naa nekk de ndax yàlla moom lépp lay def am na loo xam ne yàlla du ko def asamaan du taw xaalis mu ñun ñëpp xam nañ loolu moo tax bu ñu xëyee lu ñuy def dañuy liggéey ku ne xam nga loolu xam nga ne asamaan du taw xaalis lu tax kon buñ ñu waxee yeneen ak yeneen yoo xam ne du mun a nekk munul nekk lu tax duñ ko gëm comme niñ gëmee lii parce que suñu xel yi lañ tëj parce que dañoo lànk ba ñu góorgóorlu di xalaat ci ëllëg lan moo ñu war a muccal lan moo ñu war a jubaleeg suñu boroom lan moo tax ñu war a dugg aljanna aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا إخوة الإيمان نيو خامي الإسلام diinay xel la ak diinay xam-xam kama anna al islam diinu aqlin wa diinu ilmin wa annahu xadara ittibaa azann wa jaala al burhan wal xujja asaasul iman foog ñu xam ne islam diine xel la waaye diine xam-xam la dafa tere doomam yi jullit yi ñu topp njort ittibaau zan njort lépp looy tont looy topp mu ne la nang ci am hujja lay wu leer lu tax ndax lay woowu mooy asaasul iman mooy fondement ngëm yàlla tabaraka wa taala moo tax alquran di wax ne hal indakum min ilmin fa tuxrijuhu lana in tattabi'una illa zanna wa in antum illa taxrusuun yéen de lii ngeen di wax nii ndax mun ngeen ci indi dalil da ngay gis Sénégal koo xam ne day ngandal ay mbir waaye du la ne yàlla moo ko wax wala yonent bee ko wax mukk waaw kon kay booy sonn yow ci loo war a sonn mooy loo xam ne ëllëg yàlla daf lay fay waaye sonn loo xam ne ëllëg yowmal qiyaam doo am tiyaaba Omar radiyallahu anhu wa arda dafa gis benn waay ci kanisa église waa jaa ngi jaa waa jaa ngi yuuxu di waa ji jékki yekki rek Omar jooy bi Omar jooyee sahabatul kiram ñu ne ko Omar nga gis nit ci église ngay jooy di ko yéem ndax nu muy jaamoo yàlla Omar mu ne jooyuma lool de ñu ne Omar looy jooy mu ne kii daa sonn te du fayeeku sama xel moo dem ci aaya ba ñu ne ko ban aaya mu ne aamilatun naasiba ñu ne ko aaya bul muy teg mu ne sonn te doo fayeeku ak a bëri ci Sénégal ñu sonn te duñ fayeeku kuy sonn da ngay sonn ci loo yàlla sant hal indakum min ilmin ndax am ngeen xam-xam fa tuxrijuhu lana ngeen génne ko lii ngeen di def ngeen indi dalil bàmmeel yi siyaada yi xeer yi lam yi petaaw yi xaaw yi indi leen ay dalil yi wane ne war nañ koo takk wala war nañ koo raay indi leen waaye li fi nekk mooy in tattabiuna illa zann njortu rek njortu rek sajaada yi day xaarama raay ko bàmmeel bii de ku baax a fi nekk xaaral ma tibb ci suuf si sangu loolu kese njortu rek xanaa déggu leen li sayyiduna muhammad lu mu wax rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi nnaar rubba qabrin yukaf am na bàmmeel boo xam ne waa ji dafa ñëw bóof simmi mbax ne simmi dàll kuruj yonent bi nee na waa ji xamul saahibul qabru fi nnaar borom qabru bi ma nga safara rubba qabrin yukaf bëri na xabru bu ñu boof borom xabru baa nga safara ndax yow xamoo yàlla moo xam ki nekk fii moom lan la yow xamoo ci dara di xamoo kenn ci ñun xamul bu ñu jëlee nit dugal ko ci bàmmeel suul ko wane ginnaaw lan moo fa xew ku ko xam yàlla nee na bu ngeen fi taxawoon di ko woo sax du dégg wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila mata boo fi taxawoon ila yawmi alqiyama ya fulan ya fulan la yastajib ba pare wa hum an du'aihim mu ngoog dañu bàyyi xel sunu bopp doomu aadama ab jullit war na ko doy téere yàlla li yàlla waxoon sànq awalam yakfihim mu ne wa in antum illa taxrusuun nekkuleen ñu dul ñuy làmbatu rek ak di foog wa ma yattabi aksarahum illa zannan wa inna zanna la yugni min alxaqi shay ñu bëri njort rek daa ji kay ni ma ko gisee ka bopp kaalam gi sikim bi kii ni ma ko xoolee kii ni ma ko fokkee ni ma ko gisee mu toog rek kii li muy wax kii kii kii rek loolu rek nga ci am waaw kenn xamul kenn kenn xamalul kenn dara yàlla rek moo xam rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabin ghafura yàlla rek moo xam keneen xamul yàlla rek yàlla moo xam li ci biir keneen xamul waaw benn waay jaamu na yàlla jaamu yàlla ba mu faatu yàlla woo malaaka yi ne leen diw mi jël leen ko yóbbu ko safara malaaka yi sujjóot ci kanam yàlla ne yàlla kii ay këyitam fekkuñ ci lu bon kon naka la war a demee safara ndax gisuñu ci registre am këyit yi ñu doon bind gisuñ ci lu bon yàlla mu ne lan ngeen yaakaar ne loola doon def ba mu war a dem ajana ñu ne kii amoon na benn yaay da doon liggéeyal yaay ji daanaka jaamu na ko da ko daan boot da ko daan sang da ko daan da ko daan naka tey ji la war a demee safara yàlla mu ne xam ngeen bu liggéeyaloon yaay ji ba pare lu xol bi di wax malaaka yi ne yàlla ñun egguñu foofu xamuñu ko mu ne day wax allahumma xuzha wa arihni minha yàlla meer bi yàlla na dee ba ma noppalu yàlla na dee ba ma noppalu loolu la xol bi di wax kooku fu muy amee tiyaaba moo tax yenn saa yi nga yaakaar ci kaw fekk mbir mi du loolu moo tax yàlla mu ne ñu ëpp ci nit ñi topp ñu lu dul njort te njort nag laa yëg ni min allah shay du jëriñ dara du jëriñ waaw nañu góorgóorlu nañu yëg ne islaam diinay xel la ak xam-xam du diinay làmbatu du diine joo xam ne da nga naan fekk naa sama ndey wala fekk naa sama baay wala fekk naa wa ida qiila lahum ittabi'u ma anzala allah qaalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana wala ne waaw yéen du ngeen topp yàlla ak yonent ñu ne ah sunu papa ak sunu yaay nag samay maam nag samay maam nag mus naa am xale bu jigéen ca école ba bu ñu doon jàngal ñu ne ko yow lu tax doo muuru mu daal di jël kol gi teg ci bopp bi ci suba gi ngoon gi mu ñëw indiwul kaala gi ñu ne ko yow lu tax muuroo mu ne sama yaay nee na ñun duñu muuru ñun ñooy ñoom diw ñun ñooy ñoom diw ñun duñu muuru ma defe ne ñun dañoo war a wax ñun ñooy waa islaam waa islaam nag jigéen dafay muuru ci islaam ndax yàlla moo leen muur du aaday naar du aaday joolaa du aaday séeréer du aaday pël waaw diine yàlla la tabaraka wa taala inna din inda allah al islam musidɓe fulɓe caggal yettude allah e julde e nelaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hutba men hannde wonno islam dinu aqlin wa ilmin walal khurafat islam ko diine haqqille ko diine gandal wona diinayi mi mi ɗaminima walla ko ɗum yiimi walla ko ɗum tawmi walla ko ɗum yiimi yimɓe na waɗa ala wona noon wona diina mo ganduɗa a memboto a fawat ɗum e haqqille pawa ɗum e gandal wona tan min tawi taniraɓe amen e baɓiraɗe amen e jatiraɓe ko ɗum ɓe waɗata ko ɗum watten ala allah wiyan noon allah wi ko kala ko mbatta on yi e islam ina jeeya e sarɗi juulde wiya kangaɗo mo ala haqqille kuɗol ngol ɓamtama e makko hay goto windantamo bakka almajnun rufia anhu alqalam la dinu liman la aqlala nelaɗo wi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mo ala haqqille on o ala diine ndeke islam ko diine haqqille en jangi alquran allah wi inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi lleyli wannahar la ayatin liman li ulil albab allah wi son ƴeewi tago nge ngo tagmi asaman e leydi e no mbaylirtumi mbaɗa waglita jamma e ñalawma son ƴeewi ɗum ma on nganndu ɗum ɗo ko dalilaji laaɓɗi leerɗi e ɓen joom haqqillaji miijotode annda allah woni allah wawa addude jamma wawa addude ñalawma wawa tagde asaman wawa tagde leydi so wona allah walla won mbawɗo ɗum so allah jaggi nangue ngue hol addowo nangue so allah jaggi jamma hol gaddowo so allah jandini asaman walla wayliti leydi hol nangowo kono ko allahu subhanahu wa taala kanko wawi ɗum kanko tagi ɗum kanko jeeyi ɗum ala jeyɗo so wona kanko ɗum tagi haqqillaji ɗi il faut miijoɗen wona tan jooɗoɗen kofen juuɗe e koyɗe wiyen ko ɗum ɗo tawɗen ɗo ko ɗum he mbiɗa wiya on hoto yedde hoto wayeno sukaɓe hande sukaɓe hande ɓe wawi yeddude mawɓe oɗo andi ko ɗum ɗo tawaɗo ko ɗum tawaɗo noon ko hen mayeten ala galleji tawnoɗen ɗo ɗi ene woni galleji ɓakke e suuɗo huuɗo holno mbaɗɗen en itti walla en itani bamɗi tawnoɗen taniraɓe ina waɗɗo joni ha joni ko bamɗi walla ko kat katuji wona ko kat kat a joni noon wiyen ko hen maaya tan ko tagui e jaɓɗen maayde e ɗum ɗo wiyen en maayata e diine sa haali tan ɓe wiya ɓeɗo koɓe sukaɓe oto rewe sukaɓeɓe enen ko ɗum ɗo tawɗen ɗo eɗen foti miijade est ce que ko tawa koko tan ko ɗum woni gonga kala ko tawa ko ɗum woni gonga haqqillaji ɗi e gandal kala ko julɗo ina waɗa yo wat ɗum e gandal ɗum tagui dalil imam o- o wi al isnadu min addin al isnad min addin kala ko neɗɗo waɗata yo dañɗo fayi ɗum so wiyama ko tagui waɗɗa o wiya ko ɗo winda nani kono an ko waɗɗa ko ari wiya min de ko ɗum taw mi wi- galle o ina waɗa ko ɗum min waɗata ɗum ɗon wona diine diine koko allah neli nelaɗo sallllahu alih w sallam nelaɗo jangini ɗum tagui o ari nde o jangini julde ha gasi o way o huccite sahabaɓe o wiɓe sallu kama raaytumuni usalli juule hono no yirɗon mi mbiɗa juula ñalawma arafat yene nelaɗo wiɓe husu anni manasikakum ƴette e am no rewirton allah allahuma ihfir lana qabla al maut وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والصحداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بك جلدي bu ñu paree kenn ku nekk balaa ngay jóg ki nga xam ne moom moo defar jàkk ji nga xam ne waxtu nekk mu ngi fi def alalam gis ngeen sijaada yi gis ngeen rajo yi lépp changé nañ ko lépp rek ngir bëgg jaamu yàlla yi seen jaamu yàlla nekk ci lu jaar yoon ci lu rafet kooku war nañ ko ñaanal yàlla kenn ku nekk ci ñun bu paree mu ñaanal ko yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla wéral ko yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla sàmm ko sàmm njabootam yal na yàlla barkeelal ko am amam wax dëgg yàlla lu mu am fàttewu ci islaam ndax tey bu ñu amee occasion yu mel nii moom moo tax moom moo ko fi def terrain bi mënoon na ko def hôtel mënoon na ko def parking mënoon na ko mënoon na ko mënoon na ko ndax gis ngeen benn waaye nga ñëw nii di xëccoog moom li fi des nii te kooku tey ku ko fi bàyyi woon du ko def jàkk kon nag ku mel nii jar naa ñaanal yàlla yal na ko yàlla taxawu ya rabbal alamin allahumma salli wa sallim ala abdika wa habibika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk rabbi ighfir lana wa tub alayna innaka anta at-tawwabul ghafur subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qumu ila salatikum yarhamukumullah جزاكم الله خير
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سووا واعتدلوا يرحمكم الله صلوا tasawuf ñu xool